Euh, ban appréciation wala benn ban analyse nga ciy def. non thème bi moom xam nga thème moom c'est toujours provocateur ce qu'on peut retenir moom mooy waajal làmb nekk na ci nga ngemb sa mbër boo ko ngembee di nga ko wax ne boo demee ci làmb ji nii ngay bëree lii indi lii ngay indi lii ngay indi ndax làmb ji lii la laaj loolu nag ay congrès d'investiture ay conseil national de parti yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ne moom la ñuy encadrer mbër bi nga xamante ne ci démocratie lay bëre loolu moo tax bi nga xamante ne parti socialiste wax na xalaat def séminaire bu rëy de deux jours ak l'ensemble de coordinations et l'ensemble de structure wane ne dëkk bi fi mu jëm xalaat na ne ñu des ci biir benn Bokk Yaakaar def un grand front républicain loolu mooy jàmm Sénégal au-delà maintenant des intérêts comme parti socialiste am na candidat tout sa propre bark ainsi on a vécu ça pendant douze ans donc nekkatul mythe pour ñun xam nañ ne dëkk bi nit yi war nañ mën a ànd quelles que soient les obédiences ensemble s'ils sont d'accord sur comment définir la politique de la nation ainsi de suite mu am kenn koo xamante ne dina ko mën a porter loolu nekkatul mit si ñun donc comme démystifier nañ loolu c'est-à-dire aujourd'hui li ci des mooy humilité ak modestie qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble c'est-à-dire dans une nouvelle euh, dynamique loolu moo tax parti socialiste ne man parti socialiste d'accord naa desaat ci biir Benno Bokk Yaakaar mmh. loolu nag boo ko defee ba pare da koy matérialiser parce que comme làmb ji moom ci biir dëkk bi nit yi dañuy taxaw rek nit ne la parti bii dee na parti bële dee na alors qu'en fait cest à parti li ko constitué dafa bëri xew marketing autour d'un parti autour d'un candidat autour dun personnalité politique cest à dafa bëri ay ay mbir mais les grands partis comme les nôtres c'est des c'est des partis qui se renouvellent dedans yi nga xamante ne am na dafa am bëri ay jeunes dafa bëri ay femmes de valeur dafa bëri ay cadre comme ni nga xamante ne noonu la ko sànq sama grand pape di ko di ko waxee ainsi de suite def congrès d'investiture boo xamante ne c'est-à-dire dans la suite l'AFP a fait son investiture ce qui est Euh, la LD dina def investiture am. ce qui est sûr oui euh, comment dirais-je encore la paix dina def. investiture am ainsi de suite donc ku ci nekk jàpp nga sa dat ne nii ngay mobiliser waxtaan ak sa ay militants ñu consacré li nga xamante ne waxtaan ngeen ko ci ay instances yu gën a man maintenant ci instances yi nga xam ne ñoom ñoo gën a rëy mooy la dernière marche avant le la lutte. ca dire nga indi fa ki nga xamante ne moom mooy sa candidat ci kaw loolu ci loolu moo taxoon parti socialiste ce 16 décembre organisé un grand congrès d'investiture très grand à l'image de ce qui a fait pour le président Macky Sall en 2018 yuy ñaan nag yàlla yàlla dimbali ñu ba nga xamante ne dañ ko defee woon pour son prédécesseur euh, le président Macky Sall cest dire moom it bu ñëwee maison du parti vraiment mu jik ko mu nekk ndam boo xamante ne ndam bu rëy la. d'accord maintenant nekkul investissement bu nekkoon suñu candidat. bu parti socialiste aussi bu nekkoon même suñu candidat pour parti socialiste on aurait fait la même chose ou plus. donc képp koo xamante ne tey yaa ngi dem élection présidentielle c'est loolu la ñu doon defal président Ousmane Tanor Dieng c'est ce qu'on a fait pour le président Senghor c'est ce qu'on a toujours fait pour le président Diouf donc il tout à fait normal et prévu dans les dispositions statutaires de notre parti. c'est-à-dire d'investir un candidat. am na sax yoo xamante ne ci suñu ay biir bu nekk ay jongante suñu ay biir sax day nekk ay primaire donc day am ay xob yu bëri yoo xamante ne candidats yi dañuy jongante bu ñu paree jongante bi ñu doog a ñëwaat c'est def un congrès d'investiture donc euh, voilà c'est des modalités pratiques opératoires pour xool est-ce que di ngeen am candidat ou pas au sein de du PS. moo tax mën na la def nañ ci séminaire bu yaatu waxtaan ba xam ndax mbir mi dafa a jóge suñu biir. wala mbir mi dafa dañ ci war a dem ak yeneen d'autres coalitions bu yeneen d'autres coalitions bu ñu ci naree dem naka lay tudd ñan lay nekk ainsi de suite ainsi suite le pour et le contre a été posé et je pense que on a pris la bonne option d'accord